بين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله على كل حال mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziar di jégalu xaj na ci kàddu yi ñuy yëkkati ndax comme ni ko dijee waxee rek xayru kalaam maa xaala wa dalla wax li ci gën a baax mooy li gën a gàtt te mbir boo ko bokkee ak i nit ñëpp bokk ci loo ci am rek mu doy la xaj na nag lii cër la buñ ñu jox

Euh, cheikh di politique ma and ak mom dina len jaxal mais nak nañ waxante deug bo nekké ci commune jang li nga wara jang jàng fa yaro fa am fay am di jam ñaari gana sax buñu xex nga am ko faral motax man politique dama bayyi politique mo nekk ci sama bop mais Cheikh Sall la andal tay mom la andal euleuk te mom lay ab jappalé légui nak ñaari wax lay wax parce que duma ñew ci étudiant yi wax nañ niñ wara wax man Birahim nee na Cheikh Sall du ma man mi du ma liggéeyuma ak moom am na ñu ma ko gën a xam mais yaakaar naa ni li ma jot a joteeg moom ci ay téléphone ay conseils yu ma ko jox ak lu ma gis ma appliqué ko man ñeme naa ko ndax euh, exemple bu ndaw laa ci joxe consultation gratuite bi ñu def fii bu yàggul dama koo gis ma ni ko DG ci laa mos a joxanteeg moom loxo sax man leeral ko ma ni ko DG il serait bon peut-être bu demee ba affaire avant affaire yi di jeex nga def ay focus group yu ndaw fexe xool fekk nit ñi fi ñu toog waxtaan ak ñoom jàllale ay message affaire yu demee noonu parce que visibilité dafa baax te moom day politique wallaahi xam nga lu ma wax mu ne Omar loolu lépp dëgg la mais lii dama ko def rek ngir yàlla man ñëwuma fi sax pour politique lii dama ko def purement social moo tax bëgguma sax am ci ab cëru politique yàlla moo tax ma di ko def ma xam ni kii liggéey moo ko yëkkati ñun nag ay jeunes lañ man dégg naa jeunes yu bëri ñu ni ñun jeunes yi ñun intellectuels yi dañoo jaay suñu man gor laa ku ma cof ma wat man resuma nit lijjantiwuma nit ku ma àndal yàlla moo tax ma ànd ak yow ak commune bi wallahi lancim Cheikh Sall musuma ko xamante jàngi naa université ba jóge fa ma tabara laa xamoon ma tabara jóg xam naa ko tem naa këram almaci mais li wóor te wóor mooy Cheikh Sall mii wallahi lancim keroog consultation gratuite laa koy mos a jox loxo Pape Diouf mii moo ñu boole man na benn yoon laay tooyee ciment laa yow laa àndal tey yow laa àndal ëllëg boo ëllëgee bu li nga ñu li ñu xool ci yow buñ ko gisul man je suis un esprit libre